لغة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إدلال يرى القواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاي فتبت الرتقى سيدنا محمد ولاله وصحبه في الحال والمال واجعل بجاهه العظيم نبني يا من حماني عن دواعي الكذب عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جهلا لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا وارض بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يمن محاني بالدر واعصمني من الألحان واصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رداك مكثرا لي كلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينقني ثبور سل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوها وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من درر الظفر ودر ناب قال الذي وهب لي الكتابا ولسواي وجه العتابا سيدنا محمد ولاله وصحبه في الحال والمآل ولي بيق يوم عرفه وحق سائله أعلى معرفة يا من وهبته للشهور والسنين ولسوى سقط سقط جالب أنين يا من وابتلي شهور وسنين ولسواي سقت جالب أنين سل سوات لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي اخدام أعلامي بلا أذى وكب من قلاني يا الله يا واسو يا كبير borom borom bi si moom ni rek la bëggoon na nga ko si santal dafa ko si ay berne jox yaaw kon liggéey bi yaa ngi ko yàgg yàgg def ñaanal sëñ bi yàlla na ko suñu borom doole ay leeram ki tax ñu ko fiy def yàlla na borom yokk ay leeram ak bépp jullit bi waa daw da nekk si biir armée bi ñu ñaanal laay ñaanal si alaaji Mamoun Mbow mi tax mu ngi tax ak ak ñëpp ñaanal yàlla na suñu borom guddul aw fanam yàggal ko fi loolu te ànd ak wér ñu ngi sant mbokk yeeg dëkkandoo yëpp ñu ngi leen sant ndax liggéey bi rafet na ñëpp jàpp nañ si Baye Fall yëpp ak jàpp si liggéey bi. Eh, jaajëfee maam Cheikh Anta Mbacke di gërëm tamit suñu maam muy Ismaïla Mbaw ndax lii yëpp moo ñu ko may ndax lii yëpp bu ñu ko mayul woon ñun duñ ko am di ko wax ne Pastefam fee mu tëdd mu ñëwaatoon du ñu mere du mere du mere du mere sëñ Mamour Mbaw mi nga xam ne moo ñu jiite wax dëgg yàlla ñun sët yeeg yaa yeeg ñëpp gis nga ñu nii waañ boo ko gisee boo xoolee sax jigéen ñi ñoo gën a ab parce que lii yëpp rek doxal la seen euh, suñuy waajur yu jigéen yi muy suñuy maam yi ku ci mel ni maire Kolle Mbaw maire xaytax yal na ko yàlla yërëm maire Naar ñoom ñëpp seen liggéey lii moo waral lii moo waral ñun sët yi tamit ñu xool ñi seen maam yi doon def ñu jàpp ci di jaajëfal ñëpp rek di wax ne ñëpp rek yal nañu yàlla may fekkeek tal ñu sori ñoo ngi leen di ñaanal seen teewaay ci bés bi gis nañ ko seen lo bu ñu ñëwul tamit seen loxo ñëw na fu nekk la nit jóge tey ñëw fu nekk la nit jóge tey ñëw. waaw ah, waañ mi ne ñu ngi sant nag Baye Fall ak ak ak ak Yaay Fall yëpp daal ñëpp jàpp nañu si soo tey kenn kenn kenn toogul liggéey bi daam ñu féetewoo si waañ bi ñi féetewoo si si ndox mi ñi ñi di jox ñi ndox ñi ni naan ñi ñi féetewoo si mbana waaw ñi féetee raxas yi waaw. rafetlu bu baax euh, Assalaamy TV seen teew ci bis bi wax dëgg yàlla kontaan nañu euh, ngeen ñëw ci bis boo xam ne nag mën nañ ne euh, bis la boo xamante ni. Euh, bis la ci biir euh, yoonu murit ndax euh, ku nekk xam na ne bisu tey ji mooy bis bi nga xamante ne moom la maam Cheikh Anta jóge woon Ségou waaw ah, ñoo jotoon ci ndigal ndigal di sëñ Modou Rokhaya joxoon ko suñu maam Serigne Ismaïla Mbaw mu daan ko taxawal fële ci jàmm gën mën nañoo wax ne ay côté 89 90 moom lañ ko tàmbali njëkk ko faa defee foofee ca jàmm gën ni ko borom di waxee nag at mu jot saa mooy bis la boo xamante nii du du ay jàng ak màggal la waaw li sabab li sabab màggal gi nag mooy euh, lislaam ku nekk xam na ne yàgg naa jongante ak yéeféer yi di leen daaneel bis bii nag da cee bokk daa bokk ci bis yi nga xamante nii euh, lislaam moo ci am ndam ci kaw kéeféer ndax ku nekk xam na ne euh, sëñ Gaawaan dañ ko fay jëlee woon exilé ko ségu ci ay sabab yi tappale rek mën nañ ko ko woowee waaw pour résumer rek ñuy topp loola di topp loola di topp loola ba ñoom lañ doon ca sàkku amuñu ko suñu borom dogal ci ndam joxati ko lislaam bis boobu nag bis boobu nag moom la ñuy fàttaliku tey di ci ñaanal umma islamique bi yëpp di ci ñaanal tamit wax dëgg yàlla sunu maam ji nga xamante ne moo fi bàyyi ko ñu joxoon ko ndigal li muy Serigne Ismaïla Mbow te nga xamante nag ndigal li ba koy jot moom ak ñeneen a ko jotandoo woon waaye pas ak pëstéefam ak euh, bëgg lu baaxam ak jàmbaaram tax mu des ci loxoom ba léegi tey mu mujjee da mën naa ne ci ay sëtam ñu di ko taxawal ngeen fekk ñu fii tey ci Daaru Salaam ndax Ndakaaru lañ ko tàmbalee woon di ko fa defee tey nag ñu indi ko fii ci Daaru Salaam mu ànd ko bokki taalibe yëpp ak bokki dëkk bi ak kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp di ko fi taxawal waaw mën naa ne daal moom lii mooy sababu bis bi lii tamit mooy sababu euh, màggal gi. di gërëmaat bu baax sama nijaay muy Mamoun la. bu dul woon moom kon kenn bu duñu si fii daal ndax moom moo ñuy soññ moo ñuy ñaax moo ñuy soññ moo ñuy ñaax di gërëm sët yépp nag sët yëpp am Pastef bañ nañ ko ba suñu groupe la ñu ubbi def suñu daayira di joxe addee yi te bu addee yi mate tamit da gis ñeneen ñu jaayante def lépp kon ku nekk am nga yéene daal dañuy ñaan yéene googu yal na ko yàlla àggale ci dara darajay Seydina Mohamed. ndax bis bi mën nañ ne sëñ gaawaan la jóge ndax mooy ni ma la ko waxee sànq ci biir kàddu yi euh, sëñ gaawaan la ñu exilé woon Ségou waaw loolu nag histoire bu gudd la daa mel ni jombul xam ngeen ci lu bëree baree bëri waaye ñibbi si ga nag moom la ñuy continuer di ko màggal looloo tax bis bi borom waxoon ne du ay jàng ak màggal la ndax ay jàng moom mooy loo xam ne da ngay woo sab jàngkat jàpp sa bis togg say reer ah bu guddi jotee ñu toog jàng waaye bis bi ku nekk xam na ni dañ koy natt ci rakkaat ji gàmm euh, juróom-ñetti fan ya lu mu tombeel rek moom lañ koy def looloo waral bu ñu yegsee nag bokki taalibe yëpp génn ñu daje fii si Daaru Salaam jàng alxuraan jàng xasaayit togg ay bernde yóbbu ci kër kilifa yi moo waral gis nga waañ nii nga ñu fekk daanaka dara xew fi lii rek fi am jàng lañ koy dundale ak jàng xasaayit ak euh, togg ay bernde tey nag suñ borom teg ko ci loxob jëwriñ ji fi nekk di Serigne Ismaïla euh, Serigne Modou Mamoun Mbow di sunu wayjur Euh, di kilifa mën naa ne ci jotaay bi ñu fi nekk ñëpp mu ñëw nag ànd koog kilifay dëkk bi ah jëlaat lépp jëbalaat leen ko ànd koog ñoom di ko liggéey liggéey bu sell bi di ci sàkku ngërëmal borom dëkk bi Sëñ Gawane. Euh, ku xam Sëñ Gawane xam di géem sëriñ bi xam ne masta des ginnaaw ci dara masta des ginnaaw ci dara ku mu farewut kaw ci yoon wi farewoo ko kaw ak koo mën a doon nag ba bisam bu dikkee kenn ku nekk ku dib jullit. te dëkk ci dëkk bi wala foo mën a dëkk war nga koy bàyyi xel di ko fàttaliku ndax ni ma ko jiitale rek ci wax ji mooy bis la boo xam ne lislaam ci jëmmi boppam moo ci am ndam ci kaw kéeféer loolu nag du bisub kenn bisub ñëpp la ndax Sëñ Gaawaan moom du sëriñu benn kenn sëriñu àddina sépp la waaw ndax koo xam ne sëñ bee sëñ Tuubaa ci boppam moo ko ne yoral ma sama saayir ma yoral la sama baatin ma yoral la sa baatin kooka xam nga ne bokkut ak euh, euh, ñenn ñi waaw wax dëgg yàlla mu doon nag bis boo xam ne euh, ñëpp ko war di màggal ñëpp ko war di fàttaliku waaw ñëpp kenn ku nekk ku dib jullit ku dib murit rawatina mbokki taalibe fu waay nekk war nga bu bis bi yëgsee wax dëgg yàlla sa xel dem ci sëñ gaawaan nga def loo man ci alxuraan wala salaatu ala nabi wala xasaayit ñaanale ko ko sama borom dolli ay leeram ak ñëpp képp koo xam ne daal wax dëgg yàlla euh, lislaam ñor na la euh, liggéey liggéeyub sëriñ bi ñor na la bis bi war nga koy bàyyi xel di ko toppatoo ba bu yëgsee loo am def ko ca loo man def ko ca